sayidina wa xabibina muhammad ibni abdallah man baasahu llahu basiran wa naziran wa sirajan munira arsalahu rahmatan lilaalamin wa jaala diinahu wa shariatuhu xaalidayni hudan linnaasi ala marri lqurun ayuha almushahiduna alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarlook seen télévision Futur Média ñu ngi dellu siwaat fii ci petit écran bi jàkkaarlook yéen ci seen biir kër yi ci seen biir salon yi ci liggéeyukaay yi ak ñi koy déglu ci euh, réseaux yeeg ñi nga xam ne ñu ngi koy déglu ci seeni oto ñu ngi leen di wax yàlla na jàmm ak xéewal ak mucc sotteeku seen kaw di leen ziyaar bu baax ci ajjuma ji di ajjuma ji nga xam ne defe naa ne Oustaz Assane moo njëkk si zulqaada ndax zulqaada dugg na euh, ñuy waajal nag lu màgg muy zulhijja xam nga weer yi dafa nekk weer yu am solo ci jaamu borom bi subhanahu wa taala kon daal ñu ngi leen di nuyu di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di leen ziyaara di leen wax ñu baal ñu àq di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla na ñu yàlla may ñu teewe ko at yu bëree bëree bëree bëree bëri te yàlla def itam ñi nga xam ne oustaz Hassan wàññeeku nañu yàlla na leen yaaru yërëm am na ci sama benn tante tata Ndeye si nekk Mbour di soxna ci sama nijaay euh, ablaay Ba ma koy jaal di jaal ñoom mataar ba ak njabootam ñoom Naba ñoom Abisil la ñoom ñëpp maa ngi leen di jaal tata si di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yéege sa àjjana ya gën a kawe mag mu baax la woon ku amoon dine ku ma bëggoon lool ta si yal na ko yàlla yërëm da fekk maa ngi Saoudia bi mu génnee àdduna bërki démb su ko defee itam oustaz Hassan ñuy nuyu euh, ñi nga xam ne rek suñu doom yi ak ñi nga xam ne nag ñu ngi waaj nga xam ne ñooy alaaji yi yu bees yi ak ajaratu yu bees yi rawatina nag euh, ñi nga xam ne ñoo fas yéenee ànd ak ñun euh, di nuyu tamit suñu doom yi nga xam ne tey la seen anniversaire mu mel ni sama doom ay Aïcha maa ngi lay kuko di la wax happy birthday to yu kullu aamin wa antum bi xayrin di la wax a idu milaat tayyib wa mubaarak incha allah ak bébé Assu Ñas mi nga xam ne mooy tata Amina Amina Mbay tàntam doomu na fi Mbay ak Ñas nekk xale bu baax Assu Assu Ñas yow tamit maa ngi lay wax ne happy birthday to di la wax yàlla na nga dund gudd fan ñu dund bañ koy teewewaat déwén Oustaz Assane dama lay jox nga nuyoo di gërëm nag seen teewaay ajjuma bale paase bi passé nag moom dama toog ñun ñëpp waa Màkka waa Jidda ñun ñëpp ñu toog di xaar euh, malheureusement gisuñu leen mais bu njëkk ba kam ñëpp kontaan nañu ñoom Awa géey ñoom euh, ñu nekk Jidda xale yooyu ñëpp macha allahu taala euh, ñoom Moussa moo xam ne yore otom ba jox ma ko ma ciy dox samay soxla ñoom Aliou Falata macha allahu taala Ousmane Bari jóge Guinée. moom tamit miɗo salminma kanko nanta jol mi fof miɗo salminma miɗo juuruma naa euh, salmina foofu foof ceerno euh, ousmane bari su ko defee oustaz ñu leen doon xaar mais di leen félicité ci seen teewaay di félicité nag oustaz Fatou Kane ndax bi ma ko waxee ne ko maa ngi jéggalu vendredi bi passé daf ma ne ah liggéey bi ak loolu moo ànd ah metti na ma nag quand ndax ñun ñëpp a toogoon fas yéenee débat waaye noonu la ko yàlla dogale kon Oustaz Assane dañ lay jox nga nuyoo ndax xam nga ne perdre nañu ay minutes yu bëree bëri di nuyu sa yaay soxna Abibatu di nuyu yaay bu ndaw mooy deuxième yaay parce que man maay première di nuyu macha allah taala itam sama goro di ko ziyaar bu baax tabaarakallahu wasalaatu wasalaamu ala afdali almursalin sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam bi gën a tedd mbokk téléspectateurs yu télévision Futur Média ak ñi ñuy déglu yépp ci 99 point 4 fa tabarakallahu ak ñi nekk bitim réew leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu defal leen aljuma jàmm defal ko mboolam jullit yaay amaat mbégte ñëwaat partagé ak yow plateau bi fa tabaarakallaahu eh, di bu baax al ustaaza Faat Kan comme ni nga ko waxee. Mhm. ndax keroog bu mu fi ñëwee wax dëgg yàlla bàyyi na fi xam-xam boo xamante ni keroog ku topp émission bi jëriñ ñu nga si bu baax a baax a mhm. baax a baax. macha allah di koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla barkeel xam-xamam te may ko fan wu gudd. ah am mbégte nag jàkkaar la woot ak yow. Mhm. ndax xam nga. yaay ak doom moom bu ñu jàkkaarloo fa tabaarakallaahu saa su nekk ay njariñ ak ay jàngale yoo xamante ni yu am solo ñoom ñoo siy génn eh, balaa ñu lay delloo kàddu gi ñu ziar oustaz Mor waaw oustaz eh, Mor na maa si dëkk bi mais xaw ma fu mu ne oustaz Mor Thiam non moom day jékki-jékki rek réer oustaz Mor <laughs> léeg-léeg del feeñ nag <laughs> mais xam naa ne màkk gi lay pare waaw màkk gi lay pare yaay nga may ma rek ma jàll waa Yoof ñëpp ci xew-xew yoo xamante ni amoon na fa jamono yi ñu weesu mm-hmm. euh, muy al imam imam Hasan Beng al imaamul akbar nekkoon imam bi foofu bu mag bi euh, génn àdduna fa tabarakallahu di woon borom xam-xam di woon itam ku ñu ijaazaal si tariqa Cheikh Ahmed Tijani Sharif taajul aarifin fa tabarakallahu ñu koy ñaanal yàlla <laughs> amin ya rabbal alamin suñu borom xaare ko aljana te yokk ay leeram ak ki nga xam ne moom mooy alxaaji dun paate ndooy nekkoon maam si ñun fa tabarakallahu di jaale njabootam gi yëpp njaal mi ñu koy teg si loxo doomam soxna aji binta ndooy waneer bu mag bi ak mbokkam yëpp mhm. di ñaanal seen waajur ak ña génn àdduna si yoof gépp ñu leen di jaal di leen ñaanal yàlla di ñaanal mboolem jullit ñi am tiis boobu itam yàlla may leen xolu muñ te yërëm way dawla yëpp fa tabarakallahu si barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay comme ni nga ko waxee temps bi mu ngi dem te xam nga aj moom fi mu nekk nii daanaka fa tabarakallahu dugg nañ si dul xeexda daanaka aj gi fi mu nekk nii dugg nañ si fa tabarakallahu ñu delloo la kàddu gi euh, su ko defee ah, alaaji ahsan xam nga ne ñoo ngi nekk ci waajtaay bi euh, di nuyu ñëpp di masaw nit ñi tamit ci taw bi xam nga mm-hmm. démb ak tey Dakaaru mm-hmm, man sama kër gee daanaka ci kaw yëpp nga tooy moo tax ma ne képp kuy euh, am kër war nga bu tawee nga yéeg ci kaw di seet di xool mm-hmm. ndax itam bokk na ci euh, nit jeeg su su boo desee sa kër léeg-léeg bu tawee nga xool ndax fenn sennul fenn tooyul nga xool courant bi xam nga ak xale yi tamit ñu moytu leen ci fiil yi ak euh, ndox yi ak dëkkandoo yi tamit ñu bàyyi xel parce que mhm. itam jagal sa kër mhm. pantal say karo mhm. ba mu ndox mi yëpp wàcc sa kër dëkkandoo di sotteeku foofu xam nga loolu tamit àq dëkkandoo dafa jara bàyyi xel euh, vacances yi tamit ñu gis xale yi tamit li ñu di bàyyee ñuy dem géej macha allah taala tey Pape Cheikh a ngi ci doon wax lu am solo ma koy nuyu ak oustaz Pape Anne ak professeur euh, macha allah taala ñu ciy waxtaan waxtaan bu am solo ci dëkkandoo yi ci taw yi nga gas sa ndox fexe ba ndox mi versé wu sa kër yow mu jóge sa buntu kër rek dem ci kër këru jàmbur loolu dëkkandoo daf koy moytu ah, xale yi tamit ñëw vacances mhm. nga xam ne am na ci ñoo xam ne dañ jóge ci région yi ñëw xamuñu ndox ñu ànd ak seen morom yi di dem géej at mu jot ñu am ci ay accident yu metti ndax ku nekk mhm. ñaan nga yàlla bu la sa jigéen wala sa càmmiñ wala sa mbokk yabalee doomam mu ñëw ci yow vacances mhm. am na noo ko war a téyee mhm. mooy vacances yi nañu yóbbu xale yi ñu jàngi alquran profito comme ñun ñëpp suñu doom yi ci école yi la nekk vacances yi man sax damay gën a préféré nit ku nekk téyal boppam doomam mais bu vacances jotee nga jël sa njaboot yëpp tas leen te jamono neexul kër yi xat na dëgg la sax dox mbokk baax na léeg-léeg nga dem sa kër nijaay baax na mm. mais li gën mooy sa nijaay boobu yàlla na fekk mu am fu yaatu mm-hmm. waaye yàlla na fekk itam mu am moom tamit nu mu la mën a inscrire ci daara yi mhm. daara yëpp école daara yaa ngi fi ampagaay colonie de vacance islamique yaa ngi fi nga xam ne du fecc kese ak way lañ leen di jàngal mhm. mais dinañ leen jàngal seen diine ba mhm. buñ fa jógee dinañ def ci ñoom éducation bu dëgër boo xam ne xale bi bu ñëwee di nga xam ne changement am na loolu bala ñu woon a dem si aj bi vraiment dama ko bëggoon a euh, def taaliq ci ci ci ci li nga xam ne mooy xew nii ci ci jamono ji ak taw bi daal ñu bàyyi xel bu baax fii yeeg yooyu Euh, li ñuy gën a am solo. mooy euh, semaine bi yëpp di jour yi maa ngi woon Saoudia. macha allah waaye li may gën a conseiller pèlerin yi ak pèlerin yi mooy. Mhm. que ne ñu xam ne Màkka tàng na. ma a war a tàng na. tàngaay ba nag foo ko takk rek weesu na pour que vraiment ñu waajta ñu waajal ko ci ay yére ndax bu yàlla ne wata zawadu mhm. fa inna xayra zadi at taqwa mhm. ragal yàlla boobu dina tax itam nga bàyyi xel. que tàngaay bi su jigéen ñi nga xam ne dañu nekk âge de à l'âge de ménopause mm-hmm. nga xam ne yow boo nekkee si climatiser sax dangay ngay jékki am ay bouffées de chaleur mm-hmm. rawatina nag boo nekkee màkk te waroo dem ba ci biir mbooloo mi mm-hmm. ngay dindi sa yére di jéem a ëpp wala di di di tas sa musóor wala di tekk sa muuraay ndax doo ko fa ñeme te kenn du ko fa def ndax loolu àdduna bu tukki la comme nag foofu ñu jëm dafa am nu ñu war a mel mm-hmm. tazkiyatu nafs mm-hmm. war nañu sellal suñu bakkan yi mm-hmm. masha allahu taala war nañu waale li ñuy wax atazawadu bi taqwa maana taqwa boobu nag bokk na ci muñ as sabru muñ nga ànd ak muñ xam ne fa la ngay defi defoo ko pour touriste demoo pour tourisme demoo pour jaayi bagage wala toggi rek wala ubbi agence pour am xaalis danga ko def pour jaamu yàlla oustaz Hassan jaamu yàlla boo xam ne da ngay ñaan yàlla li si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alhajjul mabruuru laysa lahu jazaun ila al janna aj bu ñu nangu payam mooy àjjana macha allah pour que ñiy organiser organisateurs yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne ñooy dem yëpp ñu boole ànd xam ne bërëb boobu ñu jëm bërëb la boo xam ne bërëb bu jaamu yàlla la te li tax ñuy dem du caaginu puukare du caaginu tiitaru du caaginu sama doom a tekki moo tax mu jox ma billet màkk wala dama bokk ci benn parti politique ñu jox ma billet pour ma aji nga di ko xëllamtoo ñeneen ñi déedéet ëpp na loolu soo ko defee yow xamoo li ngay wuti lan la li ngay wuti mooy lan dem pour jëli sa laisser-passer àjjana àjjana boobu nag yombul parce que Oustaz Assane mhm. li gën a jafe asabru baax la wata xamulu ata xamul mooy nga jël euh, li nga xam ne moo nekk euh, ndax yàllaa ngi wax ne wa maa bi baalixihi illa bi shiqil anfusi mhm. li ma yore kenn du ko jot ci yiw bu dul dangaa ne baqata dane bàcc mhm. ça veut que mooy il faut nga sonn mhm. il faut mu metti il faut que mu jafe loolu nag da nga ciy waajal sa bopp yaa ngi woon sa kër yaa ngi woon sa appartement yaa ngi woon sa lal yaa ngi woon say frigo yaa ngi woon sa yu neex heure boo bëggee lekk-lekk loo bëgg lekk ngay lekk loo bëgg naan ngay naan yaa ngi def lu la neex yaa ngi taal sa climatiseur léegi nag yaa ngi bokk ak ñeneen yow kese bi nga juddoo ba tey yow ak sa boroom kër wala peut-être ak sa njaboot tey yaa ngi dëkk ñett ba ñeent ba juróom ci benn néeg yaa ngi dëkk yaa ngi bokk ak jàkka boo xam ne soo demee lu ma deux millions trois millions ngay bokkal benn place pour ngeen julli tafassaxu fil majlis yafsaxillaahu lakum yaa ngi bokk lu ay junni ñii boo seetee di nga fa gis man dem naa ba ñibbisi suma julleendoo ak fu ma gis nit bu ñuul daanaka foo man kese maa fa doon ñuul mm. de deux itam man kese maa fa doon sol couleur yére beneen bu ñuulul. moo tax mujj gi dama daw dem jëndi robe bu ñuul ak col bu ñuul parce que. <laughs> mënuma ah, xaram bi yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. man kese mm-hmm. ma sol fa wax. wala ma sol fa brodé. wala ma sol fa euh, jippir wala ma sol fa leneen. dama mujj obligé dem yéeg jënd sama robe bu ñuul. sol ko pour au moins ñuulaay bi kese ma des fa ak ñuulaay. mais africain gisoo ko fa. macha allah benn benn ñoo doon ñëw loolu tamit mu nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel parce que. ñun dañ ñuy xàmmee ci suñu yaram yuy feeñ dañ ñuy xàmmee ci suñu ñàkk xam nan lañ fay nekke démb benn imaam mu ngi nettali mu ne dafa am benn waay boo xam ne mu ngi ñëw di julli di julli rabax rabax rabax rabax julli gaawantu yooyu nga xam ne ruko yi du ñu mat sujud yi duñu mat euh, du am benn tuma nii na li ñuy wax dal ak iati daal ak yemo say cër ne tek mais yaa ngi jàng di di kii wala ngay wane ne da nga jàng alquran nee na euh, Euh, bi mu ko waxee ne ko noo euh, dalal dalal nga julli julli bu dal parce que di def salaat tasbihaat ak ay yeneen julli nga julli ñaari rakk yoo xam ne ànd naag sunna moo gën mu ne ka ay lazi yanha abdan isa salla waa ji wax ko loolu ne ko ne ko ah araayta lazi yanha abdan isa salla ah, loo may tere julli liyeen nii dangeen ngeen a xeeb nit bu ñuul Eh, waaye waa ji dal daane ko hal ataaka hadisul aasiya wujuhun yawma izin aamilatun tasla naaran haamiya tusqa min aynin aaniya pourtant lu baax la ñu defoon ni moom la ñuy def mais defin bi mhm. loolu mu nekk ustaas yu am solo yoo xam ne mhm. ñi nga xam ne ñu ngi dem màkkatal mukarrama mhm. di jëkke sa madinatul munawwara ca bërëb bu tedd boobu nga xam ne eh, gis nga la ñu bind ca kaaba ga eh, ca ca ca min ca kaw rawdoom ba ci nit ñi laa tarfa aswaatukum fawqa sawti nabi mhm. ah bul yëkkati sa baat nga dem di yuuxu mhm. wala ngay bëmax mhm. te ñun dañu bokk si eh, xeet yi nga xam ne ñoo ëpp kàttan ñeneen ñi parce que indo asiatique yi dañu ndaw arab yi ñu si bëri dañu ndaw su suñu mbokk égyptiens yi wala turki yi ak iraniens yi ñooñu rek lañ fa ëppul turki yi moom ñu nag ñoom a koy defante macha allah soo ko defee nit ñu ndaw ñooñu nga xam ne mm-hmm. yaa leen ëpp gabari yaa leen gën a njool mm-hmm. moytul di sukkandiku ci sa kàttan mm-hmm. di leen néewal doole loolu tamit lu jar a bàyyi xel la Oustaz Assane maa ngi nuyu imam Ousmane Sow mu ngi ci délégué général bi ak euh, docteur Abdou Aziz Kébé démb dañuy waxtaan mu ne ma soxna Fat Euh, yàlla borom bi subhaanahu wa ci weeru koor dafa ne uhilla mhm. lakum laylatu siyaami rafasu ila nisaikum ila nisaikum mhm. li koor di màgg-màgg mhm. yàlla ne asawmu lii wa ana ajzi bihi maa koy fayal sa bopp teewul guddi gi nee na dem leen uhilla lakum laylatu siyaam rafasu ila ne jote leen ak soxna yi nee na nga ñëw si aj yàlla ne alhajju assurun maalumaat fa man farada fii hinna alhajj mu ci teg falaa rafasa rafas bële mu la mayoon ca weeru koor ba ci guddi mu tere la ko fii mu tere la ko ba taatan période bi nga xam ne yaa ngi ci sa ihraam laa rafasa wala fusuqa wala jidaala fil hajj mhm. amul day yàq aj mhm. kon lépp loo xam ne mu ngi jëm ci mboosóor mhm. moo tax man en général su ma nekkee màkk dañ may wax ne ma duñ la comprendre dangay nekk beneen nit man leen fii dafa am boroom te daf lay fay cent mille téeméeri junni ci boo defee yow waaye nag ba muy wax ba ne bi ilhaad boobu lu ko indi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoo xamante ne ni. nañ ñuy ñëwee si biir Kaaba ga. waaw wala si xorom bi. waaw bokkul ak ni ko yàlla subhaanahu ni ko yàlla santaane. Mm-hmm. bu boobaa problème la. kon da ngay gis ne mu ne la kon waxuma sax nga def ko. mais mboosóor rek. bi nga xam ne mooy euh, kii wala ngoro. wala waxuma sax mais ku ko defoon ba mu dagal nga nekkoon imaam wala tey mu ne la comme yow yaa ngi sa Kaaba takkal ma sax sañoo ko. <laughs> kon yooyu nekk oustaz yoo xam ne yu jara pare la bu ko defee ma jox la foofu nga def taaliq ma dugal leen ci mhm. aj bi nuñ ko war a defee ci cinq minutes mhm, nga xam ne mun nga ci umra aj ci summeeku ci dem ci munaa dem ci euh, arafat dem mhm. musdalifa sànni jamratul aqaba def tawaaful ifaada dellu siwaat munaa wala nga des munaa xaar ba mu kii nga def taxallulul sugra xaar taxallulul kubra baada ayaamu tashriq ci cinq minutes incha allahu alhamdulillah euh, fa tabaarakallahu Euh, li nga indi euh, wax dëgg yàlla képp koo xamante ni fas yéene nga dem aji si néegu yàlla subhanahu wa taala bu tedd bu laab bu màgg bu sell boobu war nga si bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te bañ law daloon waaja dal la mm-hmm. wa ida qila lahu ittaqillaha mm-hmm. axadathu l izzatu bil ism fa xasbuhu jahannam wa bisa al mihaad yàlla nañ si yàlla mooy li nga wax léegi si waa jooju ñu la waxee ne kat yow li ngay def seet si yàlla wala ragaleel yàlla si julli gi ngay julli wala aj gi ngay aj ñi ngi koy defee du ñuy ragal si yàlla nga daal dee gis sa bopp yàlla nee na ñi nga xamante ni dañuy mel noonu saa yu ñu leen waxee ne rappeler leen à l'ordre ne leen defe leen nii ak nii ak nii ndax nii la yàlla subhanahu wa taala bëgg nii la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale uh-huh. te rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaay booy ma waxoon ne xudu an nii manasikakum xool leen ma nii may ajee ak ni ma koy defee ngeen defee ko noonu kon buñ ko jàngalee moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere yu wér yëpp andi ko te comme ni ñu koy waxee ñëpp bokk lu ñu indi ndax nee nañ montre yu baax yëpp ñoo bokk heure kon boo ko defee ak koo mën a doon daraja boo mën a am sa réew ma nga jóge boo ñëwee ñun la dund yi àndal ngalawaay ak humilité nga wàccee sa bopp ndax comme ni nga ko waxee boo demee ba euh, def li nga xam ne moom mooy ihram armal ba dugg si aj gi lépp loo xamante nii da ko amoon mu dagan la lewoon la eh, nga daan ko def di am ay tuyaaba yàlla na la loolu yëpp tey na dakk nga considérer sa bopp comme niiw bu dee góor nga ñu ne la da ngay sol sax loo xamante ni kenn du ko ñaw ndax yaay ku ne xam na ne niiw du sol lu ñu ñaw si diine lislaam mhm. dañ lay jël rek taraxlaay la takk la yow la jébbal la sa borom subhaanahu wa taala yow nga def sa bopp noonu kon war nga bàyyi xel ne yow bokkatuloo ak nit ñi monde bi ñu nekk mhm. yow yaa ngi si beneen monde jamono yooyu comme yaa ngi si beneen monde nag da nga war a fexe monde boobu nga nekk la mu laaj mhm. si si teggin la laaj ci yar ñu baal ma si kàddu gi la mu laaj ci dal la mu laaj itam ci li nga xam ne moom moo di teey nga def ko ndax loolu tamit dafa nekk loo xamante ni lu am solo la te sa ndam lay doon ndax yaay bu yàlla waxee ne mhm. alxajjul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne alxajjul mabruur laysa lahu jazaun illa al janna mhm. aj gu ñu nangu benn payoor dong la am te mooy aljana ñu xam ne kon aj yombul. wallaahi yombul de. wax nga ko sànq mais gis nga moo tax mu ne. Mhm. alxajjul mabruur waxul alxajju kese. al mabruur. voilà bu ñu nangu très pour nga am xajjan mabruuran rek. Mhm. comme ni ñu koy waxee. Mhm. wa sa'yan mashkuuran. wa zanban maghfuuran. pour nga am ko da ngay tegu nag si règle yi. ndax wax dëgg yàlla booy liggéey si bërëb. wala nga ñëw si bërëb ñu ne la bërëb bi lii ak lii ak lii lañ fi bëgg. lii ak lii ak lii ak lii lañ fi bañ. bu fekkente ne yow bëgg nga nekk foofu wala ba am fa loo xamante ni lu lay jariñ la wala loo mën a am yóbbaale ko sa kër da ngay tënku ak li nga xam ne moom mooy sartay kër googu kon bu ñu demee ba si kaabatullahi asharifa bu ñu ñëwee ñu ne ñu lii ak lii ak lii mooy sart yi ngal la nañu sàmmunte ak loolu xam nga lu tax déwén kan la fiy fekk ku ko xam yàlla rek xam ndax sax boobu ngay def di nga ko eggali wala doo ko eggali yàlla rek a xam comme niñ koy waxee mm-hmm. wax mu yegg sax suñu borom subhanahu wa taala la soob comme nit ñi nañu xam ne mm-hmm. ñun li ñuy toog muy mm-hmm. ñun ñuy toog di wax ak ni ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan ñëpp suñu njariñ kese lañ si bëgg ndax li ñu yéenee suñu bopp aljana noonu lañ ko yéenee ñëpp dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mu nangul ñu suñu aj yaay nee nañ ñu am na ku nekk si ligne bi di fëgg ñu jël ko jox la kàddu gi nga continuer incha allah salaamaaleykum ñun de xam naa ne amuñu retour sax. pour ñu gis suñu bopp allo allo salaamaaleykum. bisimilah wàññil télé bi te nga déglu ci sa téléphone. allo. waaw. waaw maa ngi lay wàññi allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Fatou Bintou. waaw bisimilah. waaw man damaa dama dama may sa soppe damay seetaan tout le temps si émission si si télé bi. waaw. waaw dama woote nag ma dama nekk ci àll bi nag xaw a jaxasoo tuuti ma bëggoon euh, ma mën a am sa numéro ñu mën a jokkoo. waaw léegi Lansana dina la ko jox Lansana dina la ko jox léegi bu soobee yàlla a partir de midi 30 12h30 rek boo ma woowee di ma jot. waaw eh, nee na mu ngi si mu nekk loolu mu nekk jafañ jaxasoom uh-huh. ñu ngi si retour bi xam naa problème technique la kon yaay uh-huh. loolu daal mooy comportement yi nga xamante ni wax nga ko bi ma siy dolli rek si ñaari seconde mooy muñ muñ bi uh-huh. ak at taxamul bi nga wax mooy ubbeeku nangoo gàddu lu bari xam nga lu tax parce que yow foofa loo fa jaay ku la ko ëppale mu ngi fa mu nga fa wallaahi loo fa jaay nga gis ku koy <laughs> la waxoon koo xamante ni ku mu romb fii nga xool ko ñaari yoon fa tabaarakallaahu nga gis ko mu lang si car si oto yi wala ku nekk si car rapide kon nga gis ne loo fi jaay te fii dañ koy tóojal di ko ubbil ay bunt di ko garde ak faa am ah wallaahi waa kon nga xam ne léeg nga bokk nit néeg di ko jaay fekk yow li ngay jaay li nga gën a fonk am ko moom da ko moom la saraxee fekk indi na cent personne ci màkk bi ngeen bokk benn néeg mu mu am na ndeysaan benn jabaru kilifa bu mag mhm. dañoo bokk néeg bu guddee moom moo ñuy foroote wallahi lazim allahu akbar moo ñuy foroote moo ñuy indi lekk moo ñuy raxasal douche bi te jëkkëram nekkoon na fi ministre affaires étrangères macha allah moom ci boppam mu nekk cadre ay doomam macha allahu taala nga xam ne kenn xamul ñaata nit la indi màkk kenn xamul lu mu yore si teraanga ba guddee man moom moo ma doon foroote ba ma tooy mu bës ma man ak taal tànday mareem jongo xoolal loolu bu ma waxee loolu al isharatu takfi lil aql waaw ma ciy ziyaare waale rek xam naa Adja Degen Fall du ma tudd turam nag xam nga waaye maa ngi koy ziyaar xoolal loolu xam nga kooku yiw bii ngeen di am wallaahi daf si am parce que mu ngi pour lu yombal yéen seen ak ngeen mën am yiw wallaahi yiw bu ngeen am moom def si am te comme li nga wax léeg-léeg sax amaana ka nga bokkal ne yow la nga passé ñëw matul sax azakaam la muy génn azaka kon nit ñi nañu ànd ak dangay ngay gis euh, suñu ñëwee ba ci ay yaamu tashriq yi mhm. nga gis ñoo xam ne dañuy jël dépense jël ku mel ni mam aw si mhm. jox ko ay millions ne ko añu arafaat yi nañ ko nañ ko jël ñii jël yónnee fekk sax duñ fa nekk yónnee seeni seeni taranga ne jëndal leen leen ndox jëndal leen leen am xale yu ñu àndaloon ku mel ni Awa Dia mhm. bu bu bu macha allah kaay mhm. ak euh, madame Sarr marem marem marem simi suñu àndee ñu nekk suñu biir ñu leen di yónni fekk ñu ngi jël ay millions di ñu jox nañu dimbali leen ujaaj yi dimbali leen pèlerin yi ñu àndal di ci liggéeyal seen borom ba pare boole su néeg ñàkkee ñoom ñu jël leen ay mer gàddu ne leen tëdd leen su ñu demee munaa ñu ne tànt bi xat na ñu ne leen toog leen ci biti su añ yi jotee ñu ne dem leen si waañ yi ngeen dem indi mhm. te seen kër ku nekk am nga lu mat fukki ñoo xam ne ñoo lay liggéeyal sa lépp mais ñu nangu ko aussi ñu di ko nangu parce que xam nañ ne am na lu ñu wut si moo tax bërigo bu feesee du yëngatu. xanaa mooy aaya ba. waaw yaa ayyuhal ladiina aamanu. hal ah. adullukum alaa tijaaratin tunjiikum min azaabin tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fi sabiilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum ah. zaalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuun ta'lamuun ilmu boobu mooy mm. jafe bu fekkee ne xam nga yow li ngay wuti lan la mm-hmm. xam nga yow li ngay defi lan la te man tawaada lillaahi rafaahu alkibriyaa isdiraa i macha allah moo tax màkka jarul dem di def nii yàlla nee na ku wàcce sa bopp ku wàcce sa bopp ma yëkkati la léeg-léeg ñu am ñu ne ma waaw yow soxna si da ngay daw di wuti kaar da ngay daw di kii lu am na yoo xam ne da nga ko war a weesa sa bopp man leen yéen man xamu leen man li may wut si fii ma ne ko man li leen li saa yu ma jë demee màkk dama ànd ak benn xale ñu dem mu dem si bitu ko or yi mm-hmm. mu may woon ay jaaro yu génn ma ne ko wallahi alazim ku ma ko mayoon sax du ma ko takk man ko gis nga lii dafa mel ni ci man fi mu nekk benn safara ma ne ko damay ñaan yàlla kañ laay egg ci di def xijaab di def burqa ba sama ñaari bët yi kese di génn kañ laay ñaan yàlla ba nga xam ne benn mën fa laay am mën koo dundee at mi yëpp ma di ko sol jël li ma am def ko ci alquran def ko ci nitu yàlla yi def ko ci daara yi def ko ci néew ju doole yi loolu loolu loolu moo ñuy yóbbu màkk mm-hmm. mais demuñu màkk pour xëccoo euh, voyager cela damay damay damay wut ay millions maa dàqale oto maa gën a soo ñëwee sama kër nangam sama dama am ay major doom dama am sama doom yaa ngi Europe sama yooyu ñun su ko nit dee def daf ñuy tiital te Oustaz Hassan ku mm-hmm. dem ba fi yonent bi tëdd. sallallahu alayhi nga xam ne kii fii mu tëdd. daj dëpp gi. tey fii mu tëdd tey nekk ci biir suuf si. ñaari saxaabaam yiy wéttali ko muy Abu Bakrin ak Umar ibnu Xattaab ñu nekk ci biir suuf. wa xaaza maa xaaza. Ah. laakin laa yumaathalu min tawaaduin wa hmm. xusuuil qalbi wa ratami. la Seydi Hadji Malick wax radiyallaahu taala anhu saxilaatu zahab. Ah, waaw nee na làq na la mu làq. la mu làq ak la mu làq lépp ah. moom Seydina Muhammad. teewul sallallaahu alayhi wa sallam laa yumaathalu min kenn du ko. kenn comparé ak kenn si wàccee sa bopp. si wàccee sa bopp ak daluk xol. waaye itam ak ak ak lewet ak ak yar moom Seydina Muhammad. ak nga xool. fa mu toll woon ba nga xam ne keroog bi muy génn àdduna mantom boobu mu ngi ko tayle ngir benn saaku ceeb bu mu jox njabootam. laa ilaaha illallaah muhammadun rasulullah te malaayika mi yore wërsëg bi ñëw ne ko. tudd nee nañ tudd gi mu tuddoon euh, jamaa beeg or bi si euh, montagne yooyu moo tax mhm. yàlla génne ko fa tey ba Arabie mhm. Saoudite nekk si dëkk yi ëpp diamant mhm. ak or ak pétrole macha allah yonent bi ne ko déedéet yàlla yàlla nga ma rey dundal ci zumratul masakin laa ilaha illallah nga dundal ma ci ëllëg yowmal qiyaamati bu may dekki ci zumratul masakin macha allah naa naa bokk ci groupe ñi nga xam ne ay néew ju doole lañu yow nga nekk si àdduna bi di xëccoo ak wut wut ak am am ba tax sax nga mu jaral la nga yàqu yàqal leen sa bopp wala nga nga nga xatal nit koo xam ne waroon nga koo mën a dimbali te yàlla tax moo tax oustaz yàlla nag ne comme noonu la julli leen seen kër woor leen mais ku nekk naka defee fi mu dëkk génne leen azaka euh, macha allah taala talqil leen baat yi waaye nag dajaleen na am bés nag yéen ñëpp communauté musulmane bi yéen ñi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul ñëw leen na ngeen wuyu si ma sama kër ma wan leen sama bopp la mu waxoon maam ibrahim alayhi salaam wa azzin fi nnaas wa azzin fi nnaas lil hajji yaatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yaatiika min kulli yaatiinaka min kulli fajjin amiq lu gox sori sori ñëw leen nag ma wan leen sama bopp yashhadu manafia lahum léegi nag mashhad bi sax mhm. balaa manafia bee ñëw mhm. taqwa bi ñëw mooy summeeku leen ah, président buur ko am ku ñàkk yéen ñëpp futteeku leen summeeku leen silib sax doo ko sol sous-vêtement du sol yaramu neen mu ne jëlal ñaari taraxlaay nga taraxlaay ah, doo takk montre bu ñu bu am dara peut-être di nga am bu la neexee mun nga takk loo xam ne dina la may heure mais summeeku leen ba set daal sa jabar araam na la sa alal araam na la sa lépp araam na la mu ne lan ngay def mu ne sangul daggal préparer sa bopp comme ni ñuy paree niiw sangul set demal jullil ma bu dee heure julli la jullil jullil ñaari rakka usaasan watul euh, wat sa sa sa partie yi nga xam ne moo nekk intime sa poqataan sa naq mhm. nga dagg say we ba euh, euh, kii sa karaw waxuñu nga wat karaw gi ndax mhm. soo watee karaw gi mhm. soo paree sa sa armal soo paree sa sa umra wala sa aj doo am loo wat kon doo watu Médine bu dee ñiy jëkk Médine mu ne nga sangu wax ne fas yéene naa dugg si aj kon oh. Oustaz Assane nit ki il faut mu xam ban façon aj lay aj balaa dem mm-hmm. mm-hmm. moo xam benn gënu ci sa moroom nag mm-hmm. moo xam tamattu la moo xam xiraan la moo xam ifraat la dafa bëri ngay dégg ñuy wax aju senegal di ko wax ifraat ifraat Sénégal amul aj Mali amul aj Gambie amul aj gine amul aj Oustaz Assane amul première aj amul deuxième aj amul troisième aj aj aj rek la tudd nga aj fukki yoon ak nga aj ñeent fukki yoon la la waroon ca première bu njëkk ba ak cinquantième fois bi moo la war dëgg la xeej na bu njëkk bi moom obligatoire la woon parce que force la woon da nga ko war a def ndax dafa bokk ci sa farata mhm. yi ci des da nga koy def nga defal ko nit mu nekk farataam mhm. wala nga def ko yow pour yokk sa mbaax mais ñaari façon aj amul aj aj rek la oustaz Hassan kon fii ngay waajale say lan say armal armal yi nag maa ngi conseillé waa Sénégal ñu bañ ko jënd fi di diisal seen bopp côté góor ñi mun nañ dem ba Arabie Saoudia ñu jëndee ko foofu ñiy jëkke Makka wala ñiy jëkke Médine parce que plus cher du passé cent rial coton cent pour cent lay doon rafet macha allahu taala ak qualité bu baax cent rial lu monnaie bi cher cher du passé vingt mille benn bu dee jigéen nag ñun suñuy jëmm dafa tolloowul ak jëmmi naar yi na ñaw lu senegal parce que boo xaaree ba dem màkk bëgg ko fa jënd wala ya ñuy saraxe foofu dafay xat ci ñun te armalu jigéen bokk na ci amul couleur pas forcément rek dafa war a nekk percale wala dafa war a weex man lii ma sol nii bu sañsawulee trop mun naa koo armale mais bu mu xat bu mu oyof bu mu gàtt na nekk loo xam ne day gudd ba sëmbaxtalu sama kanam gii nag dama kaa war a feeñal waruma koo nëbb ba ñoom ñi nga xam ne dañuy def burkon sax suñu armalee dañ koy dindi kon yow jigéen sa kanam gii doo ko muur yow mii Assane amoo droit sol mbaxana wala nga kaalaw wala nga muur sa bopp ah tiilatal ihram minal mahzurat bi nga xam ne boo ko defee. Mhm. da ngaa war a fay. ñu jël kii fëgg nga continuer. waaw minal mahzuraat waaw salaamaaleykum. mahzuraatul ihram. Mhm. muur sa bopp ci la bokk. baax na salaamaaleykum. maaleykum waa cheikh bi allo. ñu ngi delloo ziar bu baax macha allah. bi dégg dégg bi neexul de est-ce que duñ ci ñu xool machine bi ba si kanam incha allah. waaw waaw allo waaw ñu ngi waaw. fi nga nekk réseau bi normalul de day day am ay grincement allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ah, maa ngi leen di nuyu di xarit boobu sama tur beeg sama baag yi. ñu ngi lay fay. man Adja Ndiaye ba fii ci Ndefleng fii moom damaa neex moo ko am ak yow moomu toog. dëgg la macha allah alhamdulilah. tey damaa jéem jéem a alhamdulilah gis liggéey nag damaa bëgg ma xam ne bëgg naa ko. dëgg la. macha allah waaw moom nag dama koo bëgg lool sama turandoo yal yàlla boole ko yal na ma yàlla delloowaat ma. delloo amul benn problème. <laughs> nga poroxaan la nekk waaye yow Fatou Bintou bëgg naa la ko yàlla ba wallaay ndeysaan. ni ma la bëggee noonu sa ji Touba Lecce. Adji Ndioba wallaay ñu ngi lay ziar jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ngi ziar waa Touba yëpp. parce que sëñ bi dafa bëgg mënu maa dugg ba tey. ndax bëgg a dugg rek ci àjjuma bi. wallaay ndeysaan seen émission nag dama jërëjëf jërëjëf. kooku nga toogal émission dama koy jeex jëf jërëjëf jërëjëf soo demee màkk siyaare ma leen siyaare sama wallaay ndeysaan wallaay wallaay sama jawlin mm-hmm. yal na ko yàlla xaral àjjana sax amiin amiin yaa rabbal alamin maam jaara ba poroxaan mm-hmm. jërëjëf maa ngi leen di bàyyi kontaan naa tey jërëjëf ñoo gën a kontaan wallaahi ndeysaan oh jërëjëf waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan am na solo léegi yaay ñu continuer parce que temps bi xam naa li des temps bi dafa mel ni waaw mhm. dafa am loo xam ne dalaa daganoon mhm. nga aj mu araam la mhm. bokk na ci watu araam na la sawee nii nga toog xam am na nga xam dañu am tig euh, fu ñu toll di ket wee yi bokkatoo ci oustaz muur sa bopp comme tey mu ngi mel ni ñu tëdd nii rek ba si yàgg ñi nga xam ne dañoo tàmm sangu nga jékki-jékki muur sa bopp wala nga romb ay maxana rek nga yëkkati dina tag yooyu bokkatoo. Maawo Cissé. dégg waaw Maawo Alaaji Maawo bàyyil jàmbur <laughs> macha allah euh, ñaw lu ñu lu ñu lu ñu ñaw. moo xam dàll la moo xam montre la moo xam lépp lu am ñaw-ñaw am na ñoo xam ne sax dañuy jéem a pinge seen kii yi def ko genre brosse noonu. pour kii yére yi dañu bëgg toroxlu boobu. moo tax ji euh, euh, góor ñi ñu leen di wax ñu sol ñu summeeku. Mhm. Euh, sama mbokku pël ba ndeysaan bi ñu waxee mu ne ala ko ko les kay sakkate ko sakkatee kay mi it tataalu. <laughs> mooy loolu mu ne silib bi moom kay du deñ loolu moom yàlla tere du ko dindi. dégg nga isticmaalu ab tayyib awil buxuur fil badani ak parfum. xam nga léegi-léeg nga tàmm rek saa yoo kii rek sus sus man sama butéel a ngi sama saak dafa ma jëm gàddu boo armalee ah. bi nga sangoo ba pare may nañ la nga tocc miku mhm. diw waaye boo xesee ba sol yére yi ba julli ñaari rakka bi ba dugg ci ba woddu ba taraxlaayu jeex na jeex na ba ba nga koy summi ba te mooy bés bi nga sànnee jamratul aqaba ba pare macha allah amul nag njëkk <laughs> njëkk njëkk koo def ñeneen ñi jamratul ba moom moo la ciy génne moo tax oustaz maa ngi conseillé mhm. ñi nga xam ne ñu ngi teel a dem màkk parce que privé bi am na ñuy dem le 16 le 19 le 23 le 28 peut-être euh, euh, commission bi ñoom ñooy dem le 26 mais am na ñu leen di jiitu ñooñu dinañ def presque trois à 4 semaine balaa yu ay yaamu tashriq yow loolu boo ci bëggee def ifraat soo moytuwul sa aj di nga ko yàq ndax li ñuy mahzuratul ihram yépp li ñu tere ki nga xam ne moo armal dafay jafe or que yàlla yombalal na la jox na la aj bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na bu déwénee day bu ma dellu see tamattu bii laay def ñii ne moom la def ñu ne déet defu ko waaye dafa ne woon bu dellu see moom lay def ñii ne ifraat la def ñii ne xiraan la def mais li gën a wér ci saoudia tey boo leen di laaj ñoom xiraan la ñu wax mm-hmm. macha allah taala fii nag Sénégal soo waxee ñu ne ifraat la woon ndax xadisu Aïcha ba macha allah taala en tout cas ñett yëpp a baax mais yow yaay seet yi baax. Mm-hmm. ak li la arrangé. li la ci arrangé di la ñoŋal ba tax yow sa aj nga mën a mucc. ñu jël ki di fëgg yaay. waaw allo salaamaaleykum allo. waaw salaamaaleykum. ma asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ñu ngi lay ziar Adja. yàlla yàlla nangu ziar kooku kan la man la waaw macha allah. oh man kontaan fi ma nekk comme jot naa leen allo. waaw allo yaay booyee ngi nii toog di la dégg. <laughs> ak Adja Fatou Bintou. wallaay ndeysaan maa ngi kontaan bi Fatou Bintou léegi su ma amee la mi or sax dinaa ko jaay Assane Deme. <laughs> Màkka boobu maa ngi leen di suivre. ba tey yàlla suturaal ñu. <laughs> nitu yàlla ku def ci li gën macha allah. wallaahi maa ngi jaamu yàlla na ko yàlla. amiin ñu bokk ko ñun ñëpp ñu bokk ko yàlla bàyyi leen ak seen xam-xam amiin amiin may leen wér gu ak gudd fan bii daaw ñun ñoo doon waaj dem naa daaw ba ñëw macha ah, allah yàlla nangu waaye maa ngi leen maa ngi maa ngi biral na est-ce que est-ce que ren bëggoo bëggoo demaat <laughs> ndeysaan <laughs> ñi demoon daaw yëpp ren bëgg nañu demaat de allo ñu demaat suñu xel mi a nga waaye <laughs> wallaay na yàlla yokk wér yi rek amin amin amin ak sutura bi. moom damaa kontaan rek man moom ci moom. jërëjëf yaay booy jërëjëf. damaa kontaan ci moom rek. yàlla na leen yàlla fay eh, diine rek. jërëjëf wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla barkeel lépp macha allah yaay euh, ndax Oustaz Assane mhm. ñu bëri eh, li li li tax ñuy daw tamaton mooy xaru tabaski bi ñu war a rey te xar ba lu mu cher cher du passé 350 riyal mhm. mooy mhm. Euh, du mat sax peut-être cinquante mille wala cinquante deux mille cinq cent mhm. lay doon loolu nag war na tax nit ki nga denc ay deux millions trois millions euh, euh, benn xar booy génne te dañ koy delloo ci miskinu dëkk ba wala ñu delloo ko ci miskin yi nga xam ne ñooy dund ci réew mi yow ku mu noonu normalement sax am na ñoo xam ne ñu nga fay dem di rey xar gëléem moo leen war wala nag ndax ba fa gën a foor gëléem la après nag après xar après béy yow sax waroo nga yore say milliards bàyyi ko fii ci sa compte dem di rey xar boo xam ne fukki junne ñett te mun nga def ta taw wa mhm. mooy nga rey lu la neex mhm. nga bañ a rey rek benn xaru tabaski mu ngi mel ni comme Sénégal mhm. ni nga mën a amee sa xaru tabaski nga reyal ñeneen ak ñeneen oustaz dama bëgg a tënk tuuti comme temps bi njett nañu mooy bu dee jigéen boo la muy góor bu waree dugg si armal bi il faut mu sangu set moo xam dafa indisposé mhm. moo xam dafa am deretu wasin mhm. moo xam dafa am deretu jorngolle mhm. bu mu mënti doon kenn du dugg ci armal te sanguwoo macha te bu mu waase itam miiqaat yi mooy ku nekk fi ngay dem fi ngay egg am na boo xam ne léegi réseau yi foofu yaatu na yaatu goo xam ne foo ti egg boo waree armal place ba dinañ la ko wax ndax boo ko mm-hmm. paasee. Mm-hmm. dafa am lu lay war daan mm-hmm. buy dal sa kaw. ñun ñi nga xam ne ñu ëpp ci ah, Sénégal mooy faux départ. waaw faux départ la yal nañ ci yàlla musal wala penalty raté. Eh, parce que li gën a daladi ci àdduna xel mooy nga jëm ci mbir sa sa bërët baaxul. macha bërët bi nag fii lay njëkk a yàqoo. Mm. parce que di dem màkk yow xamoo ci sa faratay màkk yi dara. Mhm. moo tax ñuy yóbbu màkk yëpp moo tax gis nga ñun dañuy daje samedi bu jot. kër Serigne Diop. médiateur de la République. moo ñu ko baaxee. de passage ñu koy nuyu lu luyee jiwuñu salle luyee jiwuñu 16 luyee jiwuñu këram la ñu jox. ñu def ko 16 moom Serigne jot médiateur de la République ancien médiateur. soxnaam di maam Awa Sy nekk suñu njiit. Mhm. këram lañ koy defee. samedi bu jot 15h ba 19h. képp koo xam ne ñun yemalewuñ ko. si pèlerin yi versé ci ñun déedéet ëpp nañu loolu képp koo xam ne da dem màkk nga bëgg a ñëw mhm. pour leerlu mhm. boo ñëwee ñun dinañ la wax mhm. même ku demul màkk sa bëgg ñëw fekkee waxtaan bi soo ñëwee bisimilah ndax këram moom amul gendarme amul xaj amul attention le chien est méchant <laughs> amul chez Serigne Diop tegal sa baaraam foofu ma teg ko foofu waaw ba aljuma insha allah ndax kon dafa jeex ni nee na temps bi jeex na non laa sanam non ko nangu tey moom damay def doxu ñaxtu <laughs> parce que vraiment Euh, li ma bëggoon a wax mais kon léegi daal kon damay jox rendez bu rek samedi samedi demain ku bëgg a fekke ku bëgg a fekke à partir de quinze heures mooy bu fekkee yaa ngi jógee autoroute relais mhm. ko romb poste bi ak ministère de la santé damay tere maam am morgue bu ko <laughs> moom bu ko fa kenn tudd di nga romb franco sénégalais morgue hôpital Fann <laughs> bu ko fa kenn tudd ci côté gos bi rek li nga gis benn jaaykat fruit kër gi mm. foofu la nekk may nuyu Fatima ak uh, Adja Kiné Diouf ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal groupe Fatima ren mm. ak Arrahma mm. ak fii sabi uh, fii sabilillah waa douane lañu uh, as Alsane Diallo ak sama nijaay jong maa ngi leen di nuyu ak Cheikh mais di nuyu aussi voyagiste privé yëpp di leen wax gàcce ngaalaama macha allah waaye nag di beneen nuyoo commissaire délégué général bi ndax ren dafa ubbi mm-hmm. yaatal ñëpp kenn amul lu la naqari moo xam waa santé moo xam susu nag waa police mention spéciale rawatina nag Fatou Kiné Wade sama doom secrétaire u <laughs> jàppale nañu bu baax ci passeport yi ñu ngi koy remercier bu baax moom Fatou Kiné ak ñoom kan mm-hmm. macha allahu taala nga dem ci côté affaires étrangères mm-hmm. banque yi fa nekk ñëpp daal def nañu seen parti waa banque islamique ñoom bu naama mm-hmm. ñëpp def nañu seen participation ci jàppale nit ñi ñuy wax ne daal ñu ngi wàcc ah ñu ngi tàggu ñëpp mais àjjuma bi di ñëw man dina ma fekk dinañ émission mm, mm, mm. Ah, après àjjuma bi la ñuy dem euh, macha allahu taala di ñaanal yàlla nag ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci kër gi yàlla woyofal leen ñiñ fiy bàyyi itam yàlla yombal leen ba bu ne ak jàmm ñun ñëpp ñu dem di beral nuyoo rek kenn mbokk moo xam ne macha allah taala muy sama benn rakk dafa ñëw vacances muy ja mhm. ànd ak borom këram alaaji ibrahima dem mhm. ñu jóge pare ñëw ak seen doom bébé Aïcha mhm. bébé Omar bébé Younous bébé Mamoudou mais nag gisuma leen dégguñu woowu ñu ma téléphoné wuñ ma waaye nag man nuyu naa leen ci télé bi muy awaja ne ko nag sa mag mere na la <laughs> waaye nag macha allah taala ñuy nuyu itam sama yaay aja amindooy boomeel Ba Ayda Ba Thiès nuyu ñi ñu a fas yéene àndal ñëpp ci aj gi di leen wax yàlla na leen yàlla dimbali di la gërëmaat yow Oustaz Assane ah. di la wax ne ñi ñuy àndal yow yaay suñu guide religieux yaag Oustaz Lamine Diouf macha allah taala di nuyu itam anniversaire bébé Amina xam nga dañ ko doon anniversaire fekkewu ma ko. Amina moo ay sëtu <laughs> bébé Amina waane. macha <laughs> eh, di ko wax yàlla na ko yàlla may ak yaayam Adja Guèye. waaw Adja Djidio maa ngi koy nuyu di ko ma madame Ndoye di la wax ne daal dooyaluñu ndax dama leen namoon waaye nag comme waaxu sil bu yeen jeexul waaxu sil jeex madame Ndiaye. Euh, umu xayri xam naa xelam yëpp delluwaat na Makkatal ah. Mukarrama moom ak Aysatu Diop Fall euh, macha allah taala ak Mayram Seydi Ba pël bu rafet euh, ak madame Sarr maa ngi leen di ziar bu baax di ziar waa kër gi. jërëjëf jërëjëf yaay booy ñu ngi <laughs> am mbégte àndoon ak yow ci waxtaan bi macha allah am na solo mbokk yi doyelu ñu mais aljuma incha allah bu ngeen ñu toppaatee même heure dinañ ko yeggali di ziar bu baax waa régie di ko teg si loxo laasana. soxna Faat Diop Diagne ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak ma mama Selaan ak Layla di leen ziar bu baax di ziar itam soxna Naata Samba Mbàkke ah, macha allah sama yaay jooju ah, fa tabaarakallah ah, ak ca Amérique nag dala borom Dallas <laughs> waaw soxna Guèye gas Kanku Thiam Kanku Thiam euh, gas Guèye si Londres ñoom leen di euh, nuyu Euh, di nuyu sama nijaay Amadou duggee cooy ak euh, Bintu Mbay jabaru tonton Aziz ak waa Coy ñëpp eh, Ayda Ñaan soxna Ayda Ñaan leen ziar Ndey Fall laasara nee na day dugal seen ne ko soxna Ayda Ñaan <laughs> ziar naa ko ak ñoom sëñ am ma Gueye daal laay wax na yaay 2000 euros eh, devise boo ma ko joxee du ma ko jox nam moo ko waaw gëj naa gis Adja Digeen namm naa la namm goo xam ne màkk yow rek laa fa doon gént aywa <laughs> baax na laas mu ngi noonu yaay yow nag moom aljuma boo ma gisul uti dinaa devise Amadou Gueye 2000 euros du ma ko laal devise asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. لا تأخذه سنة ولا نوم له